Elhadj Ndiogou mbokk yi dellu di leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax seen ànd ak rajo Média xibaaru suba gi dañ koy door ak mbirum douanier bi di Léon Yuga Faye ñu daal di koy woon fekk ca euh, këram daal di koy fàtte ca roos Béthio bi ne suba la tabaski waaye ji nga xamante ne nag moom lañ jot ne moo ko def daal nañ koy kon jàllale démb ci kaso bi gannaaw bi ñu ko téye woon ay fan a ngi nii moom moom moomu di Ansou Savané liñ koy toppe nag moo di ne moom la ñu jot ne moo def lu ñu mel leerale Mouhamed Lamine Sylla Ansou Savané ki ñu tegoon loxo te njortoon ni moo faat adjudant des douanes sénégalaise Léon Youga Faye indi nañ ko ci altine ji ci tribunal bu Ndar laata ñu koy placer mandat de dépôt moom nag mu fanaan guddeem gu njëkk ci nungu siin gannaaw ba mu jàkkaarloo ak juge d'instruction bi te indiwul lay ci luñ koy tuumaal moom nag suñu moyul dana yàgg lool ci nungu siin laata ñu koy àtte adjudant Léon Youga Faye ñu faat ko ci néegam ba ñee ëllëg la feetub tabaski bi l ci ñaar ca gannaaw ga ñu tegoon loxo Ansou Savané jot ko def ay garde à vue renouvelée ak yoo xam ni dañ ko prolongé ba tey ji ñu yóbbu ko ci nungu siin Ansou Savané bi ñu teg loxo nekkoon na gardien waaye itam indicateur ci brigade des douanes bu Rosso te fetal bi nga xamee ni moom lañ njort ni moom la fàtte faate adjudant yu ko Faye dafa doonoon gannaay bu ñu sàccoon ci aji dawlu ji RFM ci ndar géej Mohamed Nabi Sylla Mohamed Nabi Sylla des ba léegi ci wàllum yoon wax ci meneenu mbir xewoon Jurbel di étudiant bi nga xamante ne dafa déguisé woon sol sore ji yëre jigéen daal di def examen bag bi ci place Corom moom waa jooju nag ak Corom lépp daal di leen di yóbbu kaso gannaaw suba sax ci alxamis yi la leen war a atte ci tribunal bu Jurbel dañuy déglu seen avocat maître Serigne Diong ci micro Babacar Diouf. ñu jàpp ne ñaari xale yi ñu jàppoon ci Jurbel ci centre d'examen bi. muy xale bu jigéen bi ak ko góor ki mu àndaloon ñu boole leen jàpp voilà donc procureur tey jàllale na leen kaso ñu war fa fanaan seen guddi gu njëkk incha allah alxames le 5 ci la ñu leen di taxawal ngir àtte leen ci tribunalu grande instance bu Diourbel kon loolu moo ci jar jàpp ñu leen di topp ne daal dañu def fraude ci examen yi loolu lañ leen di toppee ñoom ñaar incha allah dinañ leen ci àtte le cinq le 5 bi mooy alxames incha allah. kon alxames na leen di àtte ñoom ñaar ñooñu di xale bu jigéen boobu ak euh, ki nga xamante ne mooy étudiant bi déguisé woon ngir defal ko examen ca Diourbel la ñeneen ñoo xamante ne tamit daan na leen di jàllale muy juróomi nit ñoo xamante ne dañ leen euh, jàpp ca Jago ca diwaanu Tiwaawan ndaxte nee nañ dañ doon trafiqué ay carte grise woto euh, tax nag ñu daal di leen di teg loxo. mu fekk jamono jooju ndaw yañ teg loxo te jamyol yi nekk ca département bu Vélingara ndax dañoo yàqate woon école ba taal table bon ak tamit këru jàngalekat yi eh, ndax liñ leen bañaloon eh, a amal di baal ñoom nag seeni mbokk daal di seen kàddu di jéggalu waaye tamit di sàkku kilifa yi dawal yërmande neneen sax noppi nañu lépp loo xam te ne xale yàqate nañ ko foofu la ñu daal di koy fay Abdoulaye Diallo. affaire moo xaajut a jeex ndagam waajur ndaw yi ñu jàpp jàppoon ne ñoo làkk seeni daara yi la waajur ñooy sakku ñu baal leen dañu ñaan monsieur le président de la république avec l' de l' ñu ngi jégalu ñu ngi jégalu bu baax a baax baax baax jégalu bu amul limite bu amul frontière ak l' ensemble de l' éducation yoo xam ne jàngalekat yi inspecteurs yi ak syndicat enseignants ñu ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan excuse pardon ñu ñu jégal ñu ñu ngi ñaan ñu jéggal ñu ñu ngi ñaan ñu jéggal ñu ba fu jéggal mën a yem parce que lu ñu def lu ñu tere la te fépp fu ñu ko waxee tamit ñun ñooy daanu vraiment ñu ngi ñaan jéggal parce que ñun seeni lim toll ci fanweer ak benn yi la xamul fi ñu nekk ba mu jural seeni waajur ab njàqare fanweer ak benn xale ñoo daw seen yaay ñu ngi fi bu ñu lekkee duñu suur sax appel même le président des parents d'élèves ci boppam dafa am souci ci yooyu instant bi nii ñu ngi ci dans le désarroi dañu ñaan président de la république à l'ensemble du secteur de l'éducation nationale ñu jëggal ñu dootuñu ko defat mukk ci aduna waajur ndaw yi ñoo fas yéene defaraat lépp li ndaw yi yàq en plus de des actes automatiquement nous avons la case avec engagement du li payer vraiment pour réparer les tablements ainsi que les fenêtres. fàttali ne dañuy topp yi leen ndaw ginnaaw bi ñu taalee safara ca daaray Touba bu seeni dëkk ginnaaw bi ñu leen teree amal baal ca biir école bi gendarmerie mi ubbi woon ab l'enquête ci mbir mi téye woon nañu ñaari ndaw waaye dañu leen mujjee bàyyi RFM Kolda. Abdoulaye Diallo Abdoulaye Diallo wax ci geneen ko coow gu nekk ci wàllum yoon di coow su ga am ca Dugar diggante askan wa ak société bii di Pikok démb nag tribunal grande instance bu Dakar ñoom nag daal nañ wax ne plainte bi nga xam te ni société commerciale d'investissement moo ko def plainte boobu euh, mën nañu ko dellu du bu baax ndaxte kii di madame Diop euh, Ndour Ndiaye amul sañ-sañ war a mën a def plainte boobu ndaxte moom amul intérêt ci dossier bi la ñoo ngi koy ci mbir moomu nag ñu fàttali ne euh, ñii di askan wa nag dañoo taxaw te mu ne waa PICOC dañoo bëgg jël seeni suuf lu toll ci juróom-ñaar fukki hectare loolu duñ ko nangu benn yoon huit tegal juróom-ñaari minutes. RFM rajo askan wi. wéy ci xibaar yi wax ci leneen ci coowal suuf lu am ca Joal ñu ngi ko doon wax nag démb askan wi doon ñaawlu euh, taxawaayu maire bi ne mooy saax saaxee seen suuf jox ko nit maire ba nag daan nañ di leeral ne li ñu wax noonu yëpp dara amu ci ñi nga xam ne nag ay propriété la ñoom ñoo sàkkoon lotissement bi te nekkul tamit ci bërëb boo xam ne dañ fay càmm leneen loo xam ne nag euh, wax na ko moo di ne li ñu wax yëpp euh, kon dara amu ci mbir yi leer nañ la def dañ koy déglu moom. ak ñu dénk euh, commission domaniale bu mairie bu Joal euh, Baye Michel jëf ci micro Abdourahmane Diallo. li ñu joxe mooy population yi nga euh, yi nga xam ne ñoo moomoon seen tool ñu def ce qu'on appelle le le principe même de des quotas parce que bu ñu la loturee sa tool le propriétaire à 70 pour cent la mairie naa ko pour cent te ci cent yooyu lay fay le géomètre ba pare ak les différents frais donc commune de Joal Fadiouth lan la ci am. supposons qu'on a un champ de cent de cent parcelles yow yow yi nga xam ne mooy yaa moom tool bi am nga fa soixante dix parcelles te ñun ñooy def tout le travail bu ñu ko defee pour dimbale population Joal Fadiouth la mais pas pour dimbale pour jël di jaay man mi wax ak yéen ni mu nekk propriétaire laa nekk propriétaire xam na si dara xam ne wu baax li may wax nous avons des hectares et des hectares donc nekkuñu fii di brader di di brader des de rien di tout ici mu nekkoon Baye Michel Diouf di kii jiite commission bi ñu dénk wàllum suuf ca mairie bu Joal ca Linguère askan wa dëkk ca quartier abattoir ñoo wàccoon ci mbedd mi bare tali bi li ko waral moo di ne ay doo daan la ñu bëgg ndaxte accident yu bari na fa lool te bari yenn saa sa ay nit dañ ci ñàkk seen bakkan Baye Assane Diaw ñi dëkkee yoon wi jëm ci gare routière bi nekk ci diggu dëkk bi seen boolu mu ñu kaay fees na ngir accident yi bari yiñ fay nemmeeku bile bu jigéen am tiitaange lool ngir seeni doom. yi dañuy téye ba stock dafi am ñu bëgg ñu jàppale ñu dimbale ñu ñu dimbale ñu si doo daan parce que sonn nañ tara suñu doom yi guddi mais xale ku ne xam na ne kenn mënu koo téye néew ta téye jakarta yi sonal nañ ñu oto yi sonal nañ xale yi saw yi ñëpp damm nañ ñii ñë ñu defal doo daan barki démb rek fii accident am na fi ñaari nit damm fee accident fi amoon rey na fi benn xale suñu sañoon daal ñu dimbale ñu dafa ñu fi ay doo daan ndax ñun daal sonn nañ sonn nañ daal góor ñi ñoom it di fësal seenu jaaxle di woo ñi leen jiite ngir ñu mën faa jëmmal ay doo daan si nu mu gën a gaawee Yoro Seck moo wax ci seen tur. guddi ak bëccëg suñu génnee suñu xel duñu dal daanaka fu ñu toll ñun père de famille duñu nelaw liggéey sax mënatuñ ko bërki démb rek am na benn oto daf fi mbëkk benn jakarta ba ñaar damm nañ si loolu moo tax léegi dañoo tiit waaw tey sax dafa amaat kon nag léegi suñu xel dalatut moo tax tey xale yëpp génn tey ak jigéen ñi te seeni doom yi rek ñoom lañu fiy gaañ ñu ngi ñaan maire ak préfet ñu jàppale ñu si ndax sonn nañ. ginnaaw bi ñu baree tali bi ci app bu gàtt ngir yëglu ñi lay dëkkee quartier abattoir nee nañ am na yaakaar ne li ñuy jooy dina am saafara laata muy yàgg su ko deful di dinañ wàccaat ci tali bi ngir jooy seenu naqar Baye Assane Diaw Linguère rajo Futur Media. Baye Assane Diaw Kaolack balaa yàgg dina am benn réseau bi kon réseau bi jëm ci kondiir yi daañu ko gën a yaatal loolu nag su ko defee ndox tey bu ñëwee du des foofu lay du takkoon dina mën a dem loolu nag kon nekk projet boo xam ne taxaw na mu jëm nag ci initiative Covid 19 jëm ci xeex mbas mi foofu lay ak askan wi nga xam te ne ñu ngi fay ñàkku jamono ci Pape mbay Diaw. liggéey bi jëm ci yokku égo yi fii ci Kaolack dinañ ko fi amal. loolu nag ki ko xamle di Awa Thiaw nekk chef mission cabinet MSA yore wàllum assainissement Awa Thiaw moom nag di xamle solo si nga xamante ni moom la set am ci xeex bi ni xeex jàngoro jii di coronavirus. te hygiène Covid ñoo ànd te boo amul hygiène euh, set ak sellal bu àndul ak buñ ko toppatoowul comme ni mu ko waxee Covid bi daf fi gën a taxaw gën fi yàgg ku xam Covid li koy li koy gën a wàññi gën ko sori mooy nit ñi xool naka la ñuy aaree suñu bopp. ras loxo ba mu set sol masque euh, ouvrage yi nga xamante ne mooy la ñu war a fii ci biir biir Kaolack commune dafa am extension du réseau am na ay wanak yoo xamante ne dañ koy tabax ñu euh, ko wax toilette à chasse ci région bu Kaolack téeméer boo jël fukki nit ñoo ci ñàkk docteur Thierno Dieye nekk premier adjoint au maire bu Kaolack di woo askan bi ñu dem rek jël seeni dose du vaccin ñëwaat nañ fi ci période boo xam ne mbas mi moo doon li nga xam ne lii moo ëlëm àdduna yëpp rawatin nag suñu réew rawatina suñ dëkk muy Kaolack mas nag euh, docteur yi wax nañ ne geste barrière yi lii la sol leen seen mas raxasu leen distanciation sociale yooyu yëpp baax na ñu boole ci vaccination bii nga xam ne bii li ngay aar sa bopp mooy ñàkkul feegul ci ñu ko waxee. projet bi nga xamante ni nag day daal di intervenir ci lu toll ci juróomi région ci senegal dinaan tamit former ay animateurs ngir rek ñu waxtaan ak askan wi ci njariñ li nga xamante ni moom la set ak sell am ci xeex jàngoro jii di Covid 19 bi RFM Kaolack. Pape mbay Diaw. Pape mbay Diaw kii moom euh, Covid 19 la doon xeex mujj nag euh, ñàkk bakkanam ci Covid 19 euh, muy nag médecin chef district sanitaire bu Ndar moom docteur Evrard Kabou démb ci guddi gi la daal di faatu gannaaw semaine boo xam ne dañ ko rentré woon ca CTE bu nekk ca hôpital régional bu Ndar. yegg si ci xibaaru tàggat yaram ànd ceeg Malal Junior Diagne. jàngeen jëf da leen jàmm ci tàggat yaram gi ñu daal kaa dooree ak waa axlu làmb dañoo jëlub dogal ci altine ji ni dañu fas yéene def journée de vaccination ci àllarba ji nekk ñeenti fan ci weeru ut ji ca arène nationale dogal boobu ak yeneen ñu dogal jotas nañ ko jël ngir fexee ni ba delloo ginnaaw jàngoroy coronavirus ci réew mi Bira Sène mooy njiit comité national de gestion de la lutte. muy CNC. bëgg na noo def une journée de mobilisation de sensibilisation de vaccination le mercredi 4 ci arène nationale bi àllarba maanaam ginnaaw ëllëg à de huit heures bëgg nañu axlu làmb génn ñëw ñàkku président écrit fa ne woon manager fa ne woon ak promoteur yi wax nañu ku ñoom daañu oo seen i ñoñ seen ñoñ mooy mbër ya nekk ci écrit ba amateur ya fans club ya supporters ya ñu génn massivement pour que àllarba ñu ñëw ci arène na ñàkku nee bu ñu ñàkkoo ba noppi daañu xool ndax corona na am nañu yaakaar ne ñoom noonu jëlee fi corona bi comme moo ñu tere suñu activité nañ nañ bëreeg moom daan ko mu jógee fi ñu reprendre suñu bu ñuy reprendre activité comme mbas mi yàlla rek xam kañ la fiy jógee kenn dootul dugg arène nationale te wanoo sa carnet vaccination ginnaaw sa billet kenn dootul dugg arène nationale te solo masque kenn dootul arène nationale kenn dootul fa dugg itam te laaloo gel te boo duggee ci arène nationale wala stade bu ñuy tëggee lamb yi tamit faaw nga respecté mesures barrières ba stade la waroon duy bu ñu jël junni ba bàyyi ko pour nit ñi dugg fa acteurs yi tamit nee nañ ne lii nii yi nga xam ne moom lañ jàpp bu fekkee ne ni am nañu taxaw sax pour bu kaa xajamal ñoom ñoo taxaw seen bopp pour wol leen lii ñoo def barrage ne lii moo fi am àllarba nag la woote huit heures ñu dem arène nationale ñu ñëpp ñu ñakku ji naam sax na ñenn ñi ñoom am na ñu ñakku mais ku ñëw ngeen daal sa carnet rek wane ne man ñakku naa mais mm. maa ci mobilisation maa ci sensibilisation parce que loolu mbas mi. ci bésub tey ji itam jàpp leen ni ki nga xam ni rek moom moo di Pablo Longoria ak Sayer Seck daanu daje ak sunu xabaar yi ci ngoonub tey ji bu juróom benn waxtu jotee ñaari président yi kii di Longoria di président bu Olympique de Marseille Sayer Seck di Olympique Jambar daanu waxtaanee seen lëkkaloo gi dox seen diggante ñaari équipe bi ak lan la ñu nama def ci footballu Sénégal ci at yi di ñëw. si wàllu basket itam jàppale ni ñaareel bi journée tey jii mooy nar a doon tàggatub gayndeeg Sénégal yu jigéen yi ci stade Marius Ndiaye góor yi ñoom ñu wéyal seen tàggatu jëm ci afro basket bi ñoom nag ña ngaa àggatoo foofee ca terrain ba nekk <clears throat> ñoom nag góor yi ña ngaa tàggatoo ca terrain ba nekk fële ca Diamniadio di dakaar Dakar Arena wàllu basket ba léegi ak génn àdduna kii di musa Touré nekkoon entraîneur équipe nationale nekkoon formateur bu mag ci Ndar mu Mouhamed Diop nekkoon itam international basket Sénégal def ciy seede. Sénégal ñàkk na dem nit bu nit ku màgg si si liggéey mooy euh, Pape Moussa Touré coach Pape Moussa ñu ngi ko faral di wax. ñun xam nañ ci dara parce que man ak sama génération te yàlla xëy na bu ñu egsee si basket moom moom am na lu bëri lu mu ci contribuer parce que daf ñu jàngal basket xamal jàngal ñu basket tey je que euh, la ville de Saint-Louis perd na un entraîneur de kooku ñëpp xam nañ ko Sénégal aussi perd na aussi un entraîneur instituteur FIBA boo xam ne vraiment amul lu mu deful ci basket ici Saint-Louis bi mu demee à l'étranger aussi amul lu mu deful ci basket parce que dem na ba ñu dénk ko nationale bu euh, Tunisie nga xam ne donc euh, compétence am moom moo ko mayoon loolu donc vraiment maa ngi koy signifier le pays du Sénégal. jërëjëf loolu moo ko doon fës ci xabaaru tàggat yaram ñi koy gërëm bu baax a baax moom Malal Junior Diagne ñëw léegi ci euh, wàllum aada ak cosaan chroniculture bi ak Anna Rocha maa leen di nuyu mbokk yi jafe-jafe yi ñi yëngu ci wàllu euh, secteur culturel bi di jànkonteel ndax euh, troisième vague coronavirus bile concert yu bëri ak i yeneen xew-xew dañ ko mujjee fomb mu nekk nag lu métti loo xamante ne ñu ngi nekk di ko euh, dundaat AMS mu ngi ut saafara ci yooyu lay jafe-jafe gëstuk Mam Astou bu fekkee ay gouverneur yu nekk yenn ci région yi dañoo jël ndogal annulé ay concert artiste ndax ñetteelu vague coronavirus bi ñenn ci ñoom ñooñu jël seeni matuwaayu bopp dakkal bépp activité bu ñu waroon a am ku ci mel ni docteur doon graffeur moom mi nga xamante ni da doon pare fukk ak benneeli édition festival am bile. te ñun mënuñu nekk di sensibiliser bi fi feebar bi duggee ba léegi naan na nit ñi jug na nit ñi jug def respecter les mesures barrières te moytu euh, ba pare ñun ñuy def événement boo ni toll boo xam ne ñëpp dañ koy pare ñëpp dañ ci bëgg a teew que war a nekk vecteur boo xam ne day yokk feebar bi loolu ko nangu loolu du suñu doxalin du ñu daal di koy nangoo puus puus koy defaree neneen koy yaatalee xam nañ ne métti na lool waaye nag ci yoon ci la bokk. mu doon lu métti ci artistes yi surtout ci période vacances yi bu ñu sukkandikoo ci Daniel Gomez moom président bi nga xamante ni moo ëmb artistes yi di wax ni dàqul ay solution ñu wut ko. nañu xool naka ci immédiat bi lu ñu mën a def pour ñun ñëpp ñu jàppandoo xeex le virus war nañ ci bàyyi xel léegi ba ñu def lu ñu defoon daaw. bu dee situation bi mu ngi dem di améliorer wu lu ñu war a def mooy au fur et ñu commencé waat di liggéey normal que ni ko chef de l'État waxee war nañu vivre ak virus bi ci ak responsabilité. ay solution dinañ ko wut waaye tamit wéyal sensibilisation bi ci population bi muy lu leen war. côté artiste ñu war a def mooy loolu xalaat ci contrôle yi ñu xool ñan ñoo jor seen vaccination ci salle de spectacle yi xool est-ce que protocole sanitaire bi ñu ngi koy suivre donc dañu am liggéey encore bu ñu war a def ci sensibilisation bi. ni nga ci war a mën taxawoo mooy euh, cër bi nga ci am daal di sensibiliser nit ñi ñu comprendre que feebar bi demul donc foog ñu xool na la ñuy duggee ak moom na la ñuy dëkkee ak moom te dimbali sunu service sanitaire yi mooy ñu respecte mesures yi ñu wax buñ ko deful rek dina mujj metti ci ñun variant delta bi ne xuus ci dëkk bi boole kook nit ñi ci ñàkk seen bakkan di wéy di bari ay weer dong ñu commencé woon amalaat seen ay activité ñoom artistes yi ak promoteurs yi ñoom ñi lee fas yéene toog jox gët mbas mile ngir ñu mën a xam ana ban yoon la ñuy jël ngir mën a amal seen ay activité bu weesu ci wàllu koppar sax nag euh, secteur bi itam mu ngi dund tiis ak nakar ci weeru juillet ak euh, léegi génnuk euh, àdduna ay kàngam ci wàllu secteur culturel bile yu ci mel ni Jibi Ndiaye Dieynaba Kane bi Fall nekkoon euh, kàngam ci wàllu euh, théâtre waaye itam musicien bi di Maboussa Thiam nga xamante ne bokk na ci ñi tax ñu mën a def réforme bi ci wàllu bureau sénégalais di droits d'auteur ci ab communiqué ministre de la culture di leen delloo njukkal di rafetlu seen taxawaay ci biir secteur bile mbokk yi fi la ñu ci seen chronique culture di leen jaajëfal déglu bi dig daje ëllëg incha allah. RFM nit yi yéen mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant moo leen di may seen revue de presse. NCA assurance auto. seen savon de Marseille Alfay. Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop. seen gamme Opalia. seen cuuraay raktak bi rey yooyu. ak USAID Breakthrough ñoo leen di may li ci yéenikaay yi. li ci yéenikaay yi Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndal. jirë ngeen jëf docteur Babacar Niang ak ministre Abdoulaye Diouf Sarr ñoo nga ca yoon soleil national xibaar ñu neñ jiital suma assistance di docteur Babacar Niang li mu waxoon ne gaañi ñoo ngi jël matériel ak équipement médical yu état bi jënd ngir hôpital public yi di ko jaay clinique privée yi kàddoom yooyee waa ministère de la santé weddi nañu ko nee nañu amul yamuñu ca ndax it porté nañu ko plainte tuumay wax lu amul ak taxaw ci tànki xajamal liggéey bi ñuy def ngir xeex mbas mi loolee la ñu koy moom docteur a kaay bi nañu waa ministère de la te di ko muy wax mu joxe preuve ya directeur des infrastructures équipement ak maintenance bu ministère de la santé di wax ci xët mu njëkk soleil national ne li docteur Niang di wax loolee mënut a nekk matériel yi ñu jënd ngir hôpital public yi mënut mujj ci clinique privée yi Vox Populi nañu Diouf Sarr porté na plainte docteur Niang bu suma kuréel gii di avenir Sénégal Vox Populi nee nañu li sàkk moo di ñu enquête mbir mi ndax nee nañu dafa war a leer ñiy jaay matériel ñu teg leen ay li waa réew mi yëpp dégg réew mi quotidien xamal ñu ne waa ministère de la santé saisir nañu procureur bi démb nday mbili ji di docteur Babacar Niang ni ñu ci le quotidien li ma wax duma ci dindi lu toll ne tarfatal ay ni ndax lu ma xam la journal bi nañu waa Sénégal la ko wax ba wax leen ne plainte bi ñuy wax dégg naa ko waaye gisaguma ko matériel médical dafa laaj ak leerange maanaam traçabilité te bu dee ci ñu porté ma plainte lay jaare ngir loolee mën a am maa ngi leen di xaar docteur Niang ne képp ku nekk ci dëkk bi xam nga centre kër sëriñ bi boo fa demee matériel médical boo bëgg ñu génneel la ko ñu génn fa dugg ci la tribune mi xëy dugg ci morgue morgue yi ci réew mi mi ngi ñuy xamal ne buuxante bu mitti moo am ci morgue yi ci réew mi ndax variant delta bi bi mu duggee ci réew mi ak léegi ni nit ñi di dee jéggi na dayoo takk bi ci tribune joxe moo di ci benn semaine rek téeméeri doomi aadama yu manki benn corona bi faat na leen ci Sénégal ñàkk yi ñuy wax ci réew mi ak ñàkk yu ñuy wax waa réew mi docteur Tanaxa Ndiaye Dieye dib immunologue vaccinologue mi ngi ci wax lu am solo ci laas ubbil yéenekaay bi nee na kenn mënu laa wax ñàkk bi ñaata temps lay protéger ki ko jël ak dose bu mu mënti na it li ñu naan immunité collective bu ñu fokk dañuy ñàkk xale l'observateur ne ko xale yooye nga tudd sax ko yóbbu tiital leen ndax pneumopédiatre bii di professeur Demba Ba nee na bu njëkkoon xale yi la ñu doon wax naan ñu ëpp sansu mucc ci coronavirus bi waaye bi variant delta bi yegsee ci réew mi ak léegi yëf yi dafa sansé coronavirus bi mi ngi dal xale yi di leen sonal di leen faat journal l'observateur wax nañu it fukki milliards ak benn yu état bu Sénégal génne ngir jënd ci fanweeri central oxygène ak juróom journal Le Quotidien xëy ñu rangaleel ci xëtamu njëkk ay bitéeli oxygène xamal ñu ne njëgu oxygène geeg ni mu yokkee dem ba jéggi dayo ak ñu bari ni ñu ci laxase Sediane état bi taxaw na ci régler ko réglementé ko ngir oxygène bi gën a jàppande ci centre de traitement yi defarkati gaz yi ci réew mi sax le quotidien nañu soxla nañu leen ci biir comité gestion épidémie bi source waa nañu am na ñeenti fournisseurs yi ñu ci jot a boole ceekit lu ñeel oxygène bi ñuy defaree ci réew mi di production locale bi yorin wi ak doxalin wi Abdoulaye Diouf Sarr ko dénk enquête dina kay nañu moom Abdoulaye Diouf Sarr ministre de ñi ñoo ngi koy songe fu nekk di ko songe nu nekk moom Abdoulaye Diouf Sarr te nag su moytuwul xaxar ak gi ñu koy def ci gestion covid 19 bi mën naa xajamal ay ambition politique am nañu booba Macky Sall a ngi jooy ne moom président problème yi dañu ko wër jamono ji coronavirus bi fii njuuj njaaj ak yi ñuy wax ci coronavirus bi fee inondation yi di mbënd mi ca fa ca des l'observateur nañu te nag li ko gën rey ba mu dee moom Macky Sall mooy def fu nekk mu bàyyi fa boppam mi ngi ci mbas mi mi ngi ci xas yi ko opposition bi di xas te daanaka ba léegi gisul kenn ci ay alliés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 seen gaam Opalia seen cuuraay raktak bii rëy yooyu ak say de USAID Breakthraction ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. li ci kay yéenekaay yi ma Mamadou Mouhamed Ndiaye lañ ci àndaloon ñu koy gërëm bu baax baax mbokk yi foofu la ñu ñëw yéen ci xibaar yi. ni seet ñu defuk parti ci la ci gën a na fës waa ji faat wàññe di Léon Yuga Faye fanaan fanaana bi guddeem gu njëkk ca kaso bu ndar Ansu Savané démb lañ ko jàllale gannaaw bi ñu ko jàppe woon ay fan a ngi nii ñeneen ñu fanaan tam seen guddi gu njëkk kaso di étudiant bi déguisé woon solu sol yëre jigéen def bakk ci place Corom ca Jurbel ñoom ñaar ñëpp la ñu jàllale démb war leen a atte gannaaw suba alxamis njabootu xale yi ñu jàpp ca Jamwel yi ca diwaanu Vélingara ndax dañoo demoon ca école ba yàqaate ko taal table banc yi di woote yërmande pour ñu bàyyi leen ne ñu ne nag noppi nañoo ñoo fay lépp lu ñu fa yàqoon xale yooyu nag dañ leen a tere woon baal ca école ba ñu mer daal di koy yàqate mu nekkoon xibaar suba gi ci rajo Futurs Médias El Hadji Ndiogou Diène nekkoon ci micro bi ànd ak Abdoulaye Diop ci match bi ñu koy gërëm di gërëm tam may sa may ci digital bi ci kanam tuuti seen émission penco ak